voilà par rapport à votre question man je pense que euh, la may wax rek d' abord ñun euh, ce qui se passe de l' autre côté ñun ça ne nous pas. lu tax parce que ñun dañu jàpp ni est un non événement en fait pour ñun euh, ñun xam kan mooy candidat diw le parti en face ou bien le parti présidentiel ñun en réalité ça ne nous intéresse pas ñun ce qui nous intéresse mooy ce qu'on fait. fu ñu jëm ñun loolu moo ñu intéressé. mais loolu du erreur. nga xam sa adversaire en face. am xam nga xam nga en réalité ñun dañuy wax ni ñoom seen seen seen seen seen seen ki leen ngemb. Hmm. mooy daan ko cest à que le président de la majorité présidentielle te mu nekk le président Macky Sall moom rek dama jàpp ni su su ngemb woon dugg si làmb ji su jàkkaarloo ñoom premier tour ñu terrasse ko mu daan <laughs> donc su àndee suqam vraiment. moo tax ma jàpp ni loolu c'est un événement président 12 ans ngi nii mu nekk ci nguur gi musul perte li nga xamante moo di élection non waaw musul loolu waxit la mais soo seetee les ah, deux waaw déggul ma expliqué la les deux dernières élections yi Sénégal organisé élection locale et l'élection de élection législative élection yi ils ont eu 44 pour cent ci 47 pour cent xaw ma 48 pour cent je pense élection législative yi ils sont à 44 pour cent pour vous dire que ce présidentielle a perdu sa majorité présidentielle depuis longtemps loolu ça ne fait l'objet d'aucun doute léegi soo ko boolee avec les événements qui sont qui se sont déroulés mais ensuite aussi le nouveau leadership incarné par le président Ousmane Sonko je pense que euh, ñii fi nekk je pense que benn délai moo leen fi dese te dele boobu man li mu leen di ñaan ils ont le droit quand même on est en démocratie de choisir le candidat seen mën nañu choisir ku leen neex loolu y a un consensus ñun ça ne nous pose pas un problème parce que les règles le combat démocratique veut qu'il y ait une adversité ñun on n'a pas peur de l'adversité peut-être ñoom ñoo ragal adversité mais sa gars yu bëri bokk ci coalition Yewwi Askan Wi dañoo ñaan président choisir keneen koo xamante ku nekkul Amadou Ba pour Amadou mën a nekk tamit dem mu déclarer li nga xamante moo di candidature am non man man loolu sàmm loolu loolu man euh, peut-être loolu sa wax la mais man gisuma ku ko wax dégguma ko wax et loolu aussi man ça ça ne nous intéresse fait c'est-à-dire que et qu'ils ont le droit de choisir aussi c'est leur droit parce que kuy dem si élection quand même foog nga choisir sa mbër pour dem élection mais ñun jàpp nañu ne la la le choix porté sur le euh, sur le sur le premier ministre loolu c'est un non événement parce que ce monsieur la ñun xam nañ ko en réalité xam nañu fu mu mënee déjà rek bi may ñëw maa ngi dégg si ci réseaux sociaux yi ñu naan fal nañu ko miin defet ah d'accord c'est quelqu'un nga xam ne wax dëgg yàlla. pour yow Amadou Ba dafa miin défaite non non c'est quelqu'un mais Amadou Ba wax ma Parcelles Assainies bi un inconnu à savoir Jamil Sané. tey say ñu jël injustice teg ko ci kawam dugal ko prison. est-ce que vous comprenez croyant que suñ ko dugalee prison su demee Parcelles Assainies dina gagné mais il se trompe en réalité la machine électorale bu Pastef ak bu nekk Yewwi Sénégal du benn nit rek moom moo koy doxal cest am na peut-être ku nekk ci kanam. mais gis nga ñiy doxal parti bi dëgg la cheville ouvrière de de ce parti là ou bien de cette coalition là c' est le peuple sénégalais. d' accord te man jàpp naa ne le peuple sénégalais. Mhm. c' est à dire ils ont déjà euh, indiqué la voie. ils ont déjà indiqué les voies te lu ko war d' abord y' a damay man damay jox des des éléments très concrets dafa doon des éléments très concrets élection locale yi jàll na fi peuple sénégalais c' est euh, majoritairement. prononcé en faveur de l'opposition soo xoolee les grandes villes les plus significatives au Sénégal ont été gagnées par l'opposition loolu xam nga loolu c'est un concret. du même si am na ay bastions yoo xam ne ba léegi conservé na ko loolu du ñàkk. loolu un parti au pouvoir aussi doy foo quand même. doy caaxaan. parti ba nga il a les moyens il a il a ses hommes il a l'État il a tout kooku aussi du du mbër mu ndaw loolu mm. on n'en disconvient mais soo nekkee opposition peut-être avec tes moyens rudimentaires. yow lenn rek nga am sa discours pour convaincre la confiance de ce peuple sénégalais est-ce que vous nga ñëw dem ak ba parti pouvoir yóbbu ko ba mu perdre sa majorité donc yow pour vous dire que yow aussi vraiment wax dëgg yàlla champion nga ñu jóge foofu ñu dem élection législative avec tous les tout toutes les manigances qu'ils ont fait ils ont euh, ils ont ils ont invalidé la la, la la liste su, su, su, euh, titulaire ouais. parce que liste titulaire bi d'ailleurs le président Ousmane Sonko moo te ñëpp xam nañu man man dama jàpp ni sama analyse ak sama gis-gis Sénégalais yu bëri du tax lu tax taux d'abstention bi bari ñu bëri voté parce que Ousmane Sonko bokkul woon ci élection yi. d' accord ñu bëri moo tax mais gëm naa ni tey say si le président Ousmane Sonko. Euh, la liste titulaire était validée mu bokk ci élection yi heure bii du ñu assemblée nationale leneen wax. d' accord peut bu boobaa ñoo ngi nekk si benn euh, lu mu tudd sax cohabitation gouvernementale bu boobaa nañuy wax.